moomaat la sëñ ci baari dajal dajal fay si xaari war kibaari ñu di ko yéen mu daldi sëñ ca ñaxam yi caamatal sasin di rey ñuy sàq am na juróom benn fa ñaxam dem sëñ gaawaan def ko daaru ni caama sasin la sañ ci gaawaan am fa fanweeri at ak juróom di baawaan la si daan ta def ci gaawaan ma ne su ko duusi géej day baawaan boobaa ñeneen fukki atam ci duniyaa leeram nga jolli na ba lëndëm yow ca moomaat la sañ kër fa ñaaxeen tabax fa kër jëndati kër fa jànqeen boole na kër gaag mala saw jox seexam ba boole na kër gaag mala saw seexam jox Mustafa al makki yu taawam ba ca maama at la sëñ ci kër fa Jurbel tabax fa xombal naar ya duñ ko gërbal ñu naa ko deet mu jënd kër Tuubaa tuul sanca fa sànjara desem desambar maftuul ñu naa ko deet mu dali sañ ci ndéem saar seexa fa ibrahima jaw suulan waar ca yooya fan la jënd kër Tiwaawan dem mbir kilaan ngir mag ñawoon ca baawoon ca moomaat la jënd kër Tiwaawan dem mbir kilaan ngir mag ñawoon ca baawoon ba mu dalisee la jënd kër fa tabilak morow sëñ sa woon da daa dawe ni lëg jëndoon na kër fandar caama bas sasin jëndati kër ndakaaru amal sasin amoon na kër baambay amoon ko baabulo am na juróomi at sigoo ci baaflo ñi bisaam juróomi dem këram daaru dem na ba makkata ba dem madina siyaara xayrul xalqi saana diina sëriñ Musaa suul ko fi du tax mayam yow suulu jëfal na seex ba nga jëfal rasuulu duniyaa si doon kërug rijaalu laayi la kaana fiihaa xayru xalqu laayi أين خديم المستوى لله هو وسيلتي إلى لله أين صحابة رسول الله والآلي wala saabik yaa ilaahi wa ayna abdulxaadiri jilaani ayna alwaliyu ahmada tijaani wasiidul xadan faril kuntiyu aljabidul muqaddamul waliyu وسيدي محمد اليدال وصاحب الأوتاد والأبدال ورضي الله عن الجميع بعد صلاتي على شفيق ñii ñépp wuy ji nañ nañ fa nan jéem a waaj fekki mbàkke ma delu jooyaat ñaari doomenta adduna yaag may samandaa yab gent ku deete mel ni ñaari doomenta këla di weer këla di maanaam jant cey asamaaw yaa ngi jooy fa jurubel lu mbàkke kan ni farlu farlu nërmal juróomi lu mbàkke kan këlaa di jant ba demoon na Makka këlaa di weer yelimaani jàkka këlaa di jant ba dem na ba Makka këlaa di weer te yelimaani jàkka këla yoroon Daaru Salaam ak gaawaan këla yoroon Jurbel ñu fal ko yelimaan kenn ka jóg soobu ci yoonu xar baax kenn ka jóg soobu ci yoonu ak baax kele yoroon sant yongu murid yi kele yoroon sariatu farid yi kele yoroon tabaga mel ni yaaram kele baayam kele demoon gabag yaa ndag mool ya kele kaamil ya tey yër muul la noon ya yóbbu woon interdit te toppatoo waxtu ya mas ta tarde kële tubaab ya mel ne banque kële yoroon jumaa ja masula manque kële yoroon wata ya ànd taax ya kële yoroon dëddugaak xak baax ya kële yoroon baatin ba dag saayir kële yoroon saayir saan tiitar kële nu daa dimbali may nuy koppar kala nu daa jiite jumaanuy kabar kala yoroon limaan jo gëm yonoon ba kala yoroon lislaam jo dëkk ak bamba kala yoroon limaan jo gëm yonoon ba kala yoroon lislaam jo dëkk ak bamba kala yoroon tarbiya tari baag xam kële yoroon saadata daarayni salaamatan min al aarayni kële yoroon xeesaay ba mel ni naar ba kële yoroon njoolaay bànd ak na ab nab yaaram ilimaan galu ci maaram ma la xar si gaawaani yoo xam ne masulaam ci ñun soodaani Seex Bamba mas na amu gan ndawal te booba réew mi banque mu dem fa kër maamanta fa gànjar booleeg fetal gu ñu xoobe lëf ci xànjar ànd ak sëriñ Ka ñu dem Kamila jaay ko fa jëndeew nag jógal ma biila ñoo ko fa jiitale keroog ba Mbàkke la leen Seex Bamba faggul barke ngir ba ñu reen nag wala bamba woo seex mu toog ca kaw der ba mu naa koy yaa seex ñu dégg muy jàng di ñaan te jublu xibla gu nekk ñépp toog di dégloo keroog la bamba naa ci barkeb jiili na seexanta faaxu kulu jiili wala keroog la bamba naa ci barkeb jiili na seexanta kawe kulu jiili Seex Bamba bi mu nekk loo dab leetar lanker ju xonq la tofal ko tiitar am na lu seex doon saaku bés fa njaareem nettali leetar ba sëñ ba mu ba gàñña deloo la ko yónni saalum mu jindi naaru góor di jindi jaamam mu boole kook Seex Ahmadul Maxtaar Mbay Seex Maayib Njaay saarixina yaayoy ba ñu dellu see la Bamba faj seen aajo xisa bi doy na lee murid ya xaaju ma dellu wax leen fi yeneeni xar baax ngeen xam ni sii di Anta Mbàkke moo baax keroog ba Seex Bamba demee maa yomba ca ama jëy sa sim atum tukkeem moo di atum junneeg ñetti téeméer ak fukki ak ñett li lim bi lee woor loola la siid yant lim ci xaalis def ko sarax ca moomaat lii laa gis la fab ci ngur da juróom-ñaar ñuy jëndi ay jaam penk fuuta la jaar Amadou Njaay Joob ak Amar Biraan Saar sëriñ ma xujja ñang li leen doy waar Siidi Ba Sidi Joob wa Abdoulaye Faye ak Ibra Jang seexante daan fay ngir ku ko loolu mat juróom yaar mu may la yaari jaam mu may la yaari jaam ki lee di muxtaar ngir ku ko loolu mat juróom ñaar mu may la yaari jaam ki lee di muxtaar jéebéer bu man ilayka yaa rabbal waraa mu mbala yàlla yow nga dem sol say dara ca maamaat la woolu wëkk neeg ya ni leen na ngeen wër mbàkke topp neeg ya fab nu ñetti téeméer boole jébeer ya ñi séddale waa mbàkke ñu mel ni buur ya ahmadu soxna joob la jox téeméer ya moog seex ka ak seex ab sa cooy séeréer ba ba ñu demee mbàkke ñu wër ko ba mu daj ku ne dërëm ak ñaar alal lii lay faj lam jox magam sëñ mamar borom saam ma ne ko lim mat na ngàlloo ci jaam jox na koy xandi diw yu ànd ak téeméer yu ibra taal yoroon tofal ca fanweer jox na ko ay gëléem yu ànd ak fasit ngir day sëriñ di baay di mag maa ko xibaar Seex Ibra Numbe ñetti fas ak yaa jaam Seex Ibra numbe yitti fas akub jaam Seex Ibra gay yaari gëléem jaam Seex Ibra am sa am gëléem jaam moo soxna Seck am na téeméer akub mbaam jaam jox na ko aw fas ak gëléem naam jox na sëriñ Mbàkke jaam joxoon na téeméer akub fas sëriñ daam ku weddi nga laaj ko moor caam mbaa njuugu njaay mbaa sayxu ba ñooy ndawi siidante njaay ñoom la borom gaawaan joxoon jéebéer ñu yóot ko waa mbàkke bawal lingeer yi ñoom la borom gaawaan joxoon jéebéer ya ñu yóot ko waa mbàkke bawal lingeer ya seexante lim joxe mënees ko li man njame may dama fa gaawaan ay lam may ma fa ab daamina may ma mantoo falaa waree moomale addu gantu may na ma xaalis bu ma ne sukoolim ak ñetti saaku ceeb ki lay boroom jom dégg na ma bis doomam fa taaxi bu bi yeer dégg na ma bis doomam fa taaxam li wi yeer ni ma su may ajeeti yóbbu fu leer yàlla na buur yàlla defal ma xaama di jaay seyxinaa bisub xiyaama te yàlla naa dund ba denc doomam te aje màkkata ni yal na doomam amin amin ni leen amin na yal nan ko fekke gaamadul maamoona ma deloox leen fi yeneen ni xaru baax ngeen xam ni Sidi Anta Mbàkke moo baax ba dam amee juróomi at maayomba ak i kunaakiri ku nekki lambo ñuy jënd taali murid yi tuuba ñuy jënd taali bi yi tuuba ngir bëgg lislaam fay yëgal ni booba seexanto faam nay junne jox tubaab yi ngir bëgg dégg mbaam ba gay deg faa bi ca moomaat la dégg Abdoulaye Ndour naa gis na Bamba fa gabon ma ngay luur mu yónni Babacar mu def maa yomba yóbbu yadi yati li siidi Bamba boobee la tàggu Bamba yoonu Màkka mu naa muñ bindal ko dénk waxal xafiisu najlu seyxil sarra duniyaa wa axra wa kafaawum durra ca maamaat la daldi buur dem Kongo fekk sëñ Tuubaa ne ma gongo nee na ba wi nu Seex Bamba da maa ngi toogoon ak yonent ba mooma la wax ma daldi jublu xibla seen la ci saayir ak ci baatin xam la mu ne ma Seex Anta na yor sa saayir ma yor sa baatin baatinam nga fab yor li la taxoon Seex moomul boppam kawam kale ko yor kawam kale biiram li la taxoon Seex am Seex Anta moo Seex Bamba moomul boppam kawam kale ko yor kale yor biiram moo tax sëñ ba boole ay diiwaani yamu taalifoon jox ko sëñ gaawaani ba la ko Masamba ak Mbàkke kan ni sotti delloo day ba joko loolu weñ ba rasulullaay toogo mu barke loo ko doona lal baa nga woon gaawaan maamanta faatoo ñu teg ko ci mu mel ni jant yóbbu fa maamaaranta robaale koog lal booba suuyanta wa radiyallaahu anil jami yàlla nu bambara moom bi shafi ma del wax leen li ma gis ci leetar yi Bàmba bindal seex di wax ay tiitar yi saa ci fukki leetar ak ñenant mbindum loxoom seex Bàmba lii dub lënt mu def ko cib téere bu toll nib kaamil léppi mbindum sëriñ bi seexay kaamil seex Moodu Njaay Joob am na ñaari téeméer ci leetaram yu mu bindi Seex Bambaay Mbër Seex Moodu Njaay Joob am na ñaari téeméer ci leetaram yu mu bind Bamba moo foor leetar bu dem di yóbbu ay iddaaya jawaab ju ñëw di yokk ay wilaaya gis naa jawaab ju ko sëriñ bi tontu gis naa jawaab ju ko sëriñ bi tontu naa ko bégal yigéen ñu doo tollantu gisaa jawaab ju ko sëriñ bi tontu naa ko bégal yëgal ni doo tollantu te maamaat la mul xasaa dem ya yónnee ko bamba boola làq ndam ya gis naa sëriñ bi naa ko ni ma bettee ci muul yi yal na la ko yàlla bettee gisaamu naa ko tagg yonan yii nga muul yal na la yonan bi bégal yow mal xumuul naa ko gisaamu naa ko fa waraw nga san maas wala gisaamu naa ko fa waraw nga sam kem doonte faxaat nañuy dawit bi ngeen yem gisaamu naa ko làq ngay di duwaani ma nga tukkee ci yàlla fi diwaani gisaamu naa ko tuuti koon nga faatu jam sa sin maala defal aayaati su dóorul asraar ñooy ku bóorul asraar ndekoon dana la wax lu dolli sag waar su dóorul asraar mooy ku bóorul asraar ndekoon dana la wax lu dolli sag waar ca moomaat ca moomaat law tal la tawatoon fa gaawaan sama ma do tawtoon fa gaawaan te soxna xadi faatu ruya saawaan bismillaahi rahmaani rahiim ñu fa fas yéene jàng fii wolofalu sëriñ gaawaan bi nga xam ne sëriñ Moussa Ka moo ko bind nettali ci dundug maam Cheikh Anta borom gaawaan yal na ko yàlla fayal te taasu ci barke maam Cheikh Anta bi jaay xadim sëriñ Moussa Gueye talmisu Cheikh Mouhamadul Mourtada bu Ndar mooy jàng xasida gi bismillah الحمد لله الذي أمات وهو حي كدنا قد مات الحمد لله الذي أمات وهو حي كدنا قد مات ثم صلاته على من فات كل الولاة والجناين مات wabaadu Moussa dellu sant yàlla julli ci Moustapha mu xam ma yil la mboolem murid yi maa ngi leen di yungub murid yi rijaal sayxu suyooxi sayyidul muxtaari moo doon kunti yu ma daal muxtaari alim la woon alxaaji sey xonta mooy jant kenn du ko man anta sërif la woon bañ ba moo di maarifa moo tax mu giddoon caama sarafa taarix ba mooy atum junneeg ñaari téeméer yi te juróom ñett fukk ak juróom yu leer bés bu mu gënee àdduna réewum Saalum fa Poroxaar saay nopp ne maalum nee nañ Seex Bàmba foofu la fanaan di faagu ay ngërëm di bindaaka ñaan keroog la sunu maam Xaadim Mamar Anta jébbal Sëriñ Tuubaa mbirum Seex Anta keroog la daal leer ga daal di jolli mel ni jant fenke ca maam oranta maamanta ñu daal di tuddi Siidul Muxtaari turam wa siiw ba dem gannaar ca moomaat sëriñ Musaa ca moomaat la turandoo faatu ñu roof ka ñu roof ka sirru ba yaatu sëñ Musaa ca Maamaat la turandoo wa ñoroof ka sirru ba li lay ayaatu Seex Sàmba Tukulóor bindu këb téere Seex Sàmba Tukulóor bindu këb téere moog baayam ak Seex Bamba yee ko biire saxante naa ma saafu maa ab téere loolu yetti téere yi ba kabiiri keroog la moomanta milaas néegam ba famul ko lépp ñëw sarax baayam ba ni ko nu fa ni sunu maam maaram te ni seex siidiya moo di jaaram bisu keroog la yàlla def xar baax yaa ci siidanta mooy borom inaaya bisub keroog la yàlla def xar baax ya ci Sidi Anta mooy borom inaaya déglul ma wax la tey fa maam Seex Anta jaaroon ca dundug sunu maam Moor Anta doora dawal déglul ma wax la fa maam Seex Anta jaaroon ca dundug sunu maam Moor Anta doora dawal Ahmadu Bamba maam daam fi saahir ngir maa ko laaj sëriñ daam ceeti atam la baay ba saalum ci yetti atam la baay ba génn saalum ñibbi këram Mbakke Pataar tey aalim Kajoor ña jiital ko mu gis Lat Jooru mu def ko xaadee mu la ya jooru kajoor ña jiital ko mu gis la jooru ma def ko xaadeem woowa laayi jooru ñu teg ca yette at mu ab sëriñ fóora ju rëy la woon ju tudd ma sëriñ ab siñe siñe la woon bu xam quraani te bare xam-xam moo roon soodaani mu boole koog Ibra Faati لطلب القرآن سلاياتي sëriñ baa ndak ñoom baa di bar ñi mu xëy ni leen te jéem a dem samfer ñi te na baayum yónni woon si Bamba mu jëli leen fóore ja bañ ngir yan ba ba daam xëyee mu xëy ni meesi njuuy Bamba maam Ceerno gis ko ni ko toppal Bamba keroog la xëy di daw ba jàll Pamba ngir na ma baaya mag magam Seex Bamba mu seen ñu koy dab njool ma nuur ca ndox ma ci Pamba ni meles ca njax ma mboola ma naa ndax dafa suux ci dex yaam dafa naaw am dafa dellu kër ga mu ne meles sayidul muxtaaru keroog bisub xunti ma noon ya gaaru mu ne bi sayidul muxtaaru keroog noon ya gaaru keroog la seex tàmbali fi ajal xar mu di xam ngeen ni bi moo baax te boo juróom benn at ak juróom ñaar la magum seexante moom doy waar naar yaa ki jàpp foofu teggi waa ndaam ko gànnaar di ko jaayi nit jaam ba ñu demee Makka Baraama xaadi góor gaa ko nangu yoot ka xaadi keroog la baayam giñ ni siidal muxtaar insaara bi dina doon na ca moomaar lañ fa yabal sëriñ daam mook saat na jaay abdu bii si maam daam sëriñ musaa ne ca moomaat lañ fa yabal sëriñ daam mook saat na jaay abdu bii si maam daam baayam ba njëbal ke keroog sëriñ daam ni ko nowatu alxuraan ci daaraam mu yor ko jàngal ko fa néegi cekkeen foofa la njàmbale ba taar ba réer leen Seex Abdurahmaan daldi dem ba cumbuleen ànd ak borom gaawaan murid yëngu leen sëriñ Musaa ne wala tere la dale kaw ba suwara billaahi moo amee li waawu suwara Seex Abdurahmaan dal di del si Mbàkke fekk si Bàmba ngir nga sàkku barke sëñ Musaa ne foofa la tere la kaw ba fatxi ba ca la xadra di yëkki waxtu subbi nee na la seexante janoog sëriñ daam ni ko demal ma dem ca saa mag mooy daam keroog la xëy ne mot a fekk Bamba xam ne sëriñ daam atunul yanam ba ku weddi lii nga dem ko laaj sëriñ daam mooma ko wax ma way ko man mi way daam nee na ku weddi lii nga dem ko laaj sëriñ daam mooma ko wax ma way ko man mi way daam Seex Bamba jokk sa nijaay Mor Seck moo ko defum kaang loolu bul ko ca moomaat la xaadima malanta baayam ba leer ga raw na am jant ama sasi la woon muju la wuy ji yàlla Bamba yor xarnoom ba ca bopp xarnoom ba di ama sasi la Bamba ñëw Mbàkke Bawal ngir ñibbisi lalaay fanweer ya te moom bamba seexantaam fukk ak juróom laa san ba ngir bamba ñëw na fi caama saraa lakum sunuyu nopp saraa na saraa ngir bamba ñëw na fi caama saraa lakum sunuyu nopp saraa na saraa taarix ba mooy atum ju nekk ñaari téeméer yu teg juróom ñaar fukk loolu moo leer fukki juróom yi lañ magante fukki at juróom yi lañu rawante at juróom ñaar fukki ak juróom la loolu Seex Mbàkke Buso ni xii la seen mbir niroona seeni at yamoona mécanicien machine ba mool ba jooy na bi xarnu mooy xarnu ba yàlla daal wax aji tegee koy fekk loolu moo sax Tuubaa li man balaxa mooy hadiis ja moom la Sëriñ Tuubaa wayoon dibee ja Tuubaa li man balaxa mooy hadiis ja moom la Sëriñ Tuubaa wayoon dibee ja min asasin لما زلزل تقبلا وبسراتي كواني سبلا ca moomaat ca moomaat la Bamba sëñ ci Mbàkke fa tarbiya saxal fa barke ca moomaat la Bamba njëkk gàmmu ca googa kër la tàmbalee am ca moomaat la Bàmba njëkk tëgg njool maaka jëy sësin mu far ca lagi ca moomaat la Seex caat ma juddoo pataar Bàmba ko tuddi laaj ma Bàmba ko tuddi laaj ma Mbakke Kajoor la gonte moom Sëriñ Daam nee keroog la mujj tiim ba dem saam Muusaa yaa ngi xuus ci Bàmba dëppal ca way seexanta fab ne ba ca moomaat la Bàmba jox seexanta Sëriñ Musaa ne ca moomaat la Bàmba fab seexanta jëbal magam Sëriñ Mamar muy sant Seex Mamar Jaara baayum taala jàngal ko lax dëri ak risaala ca moomaat lantaar ba sóor yaram wa xeesaay baam dag leeraay baag banam wa waa mbàkke naa ko laxasal te salli te génn mbàkke lu ko moy nga gàlli ca mooma lantaar ba sóor yaram wa xeesaay ba ànd ak leer gaag banam wa waa mbàkke naa ko laxasal te salli te génn Mbàkke lu ko mooy nga gàlli moo jëkk fa mbiram ci seen askan jébbal Sëriñ Tuuba niroowul ak kenn masa dikkal sëriñ ba naan ko nos ba nal bi may sa mbaarik ñu xam ne yaay sang bi yaa def yaaram yaaram du gam-gam loog sagan mbaa xaadam mas naa bi naa ko ñaas ma ma def sa bàmbara nga sëf ma laas ma ñu xam ne yaa dib lawbe mbaam maa di mbaamam ñu xam ne yaa di lawbe maa di mbaama doo sama doomi baay wa bala maamam mas naa diggal sëriñ ba naa jaay ma ni ñuy defub jaam yaay borom meraay ma ñu xam ne di góor si di jaamba yoroo di pël malal moo di jaamba mas naa siyaare sol mbubum hariira sëriñ Musaa ne ma ngay niroo sam seen wa sam hariira dana keroog la bamba dolli fu tibb ma taal ko mooy tàkk mu sol ko mbég ma seex naa ko mbàkke sant naa la baal ma alhamdulillahi lo tee nga taal ma sérif molaay nasar moo ko jaayoon mbub ma seexanta jëndee ko jibeer dëggal ma keroog la faam mel ma may ko mbaaxaan mu ni ko sol keroog la tàggoog caaxaan keroog la fab mel na ma may mu di ko sol keroog la tàggoog caaxaan keroog la Bamba fiiti woo baatin ba mu fiiti woo saayir sa fab na yen ba mas naa yoral Seex Bamba bés ak sakalaam ñuy dem ci waxtu suba lay ba du ko faam keroog ba Bambay bëgg a xuus ca lay ba daf fëlëñ fi kanamam ak taar ba fa di xalam koy wéy bëgg na ñax ma Seex Bamba topp ci naa kon neex ma Sëriñ Musaa ne keroog la am marlaam ya ak lalam ya ak caw ga yaag tepp yaag bangam ya ku weddi lii nga laaj ko Seyx Mbàkke mooy denc doom denc tudde Soxna Mbàkke moo seere keroog ba mu xibaar xisaam ba ba mu tëddee ca kaw lalab xayam ba sëriñ Musaa ne budul koo nag rangoon yawoon ca wam sasi konte nu yéem rëngoon yi wàcca sa ci sa sasi nee na bulu koor nag rëngoon yoon ca wam sasi konte nu yéem rëngoon yi wal ci sa sasi ca yow atum sa sasi yaa di njuuma yaa doon na wam sasi yëngal ga réew mi sa mbaat seexante dem na yóbbaale sew xaafiya kenn amatul salaamatan waafiyo yaxante njaay sa dem gi am na fiir nde yaa neexa taarixal nde yaa di gaynde koloni yëpp yëngu nañ ngir itileer labaraar ya dem nañ yi addu ati leer sa noon ya rëcc nañ mbirum balees ma sa noon yi rëcc nañ mbirim balees ma mi ja fay na mbaal ja mbàkke muus ma rudda makka ilal idaa ilal idaa rudda makka ilal idaa ilal idaa moom la Sëriñ Tuubaa waxoon li man adaa rudda makka ilal idaa ilal idaa moom la Sëriñ Tuubaa waxoon li man adaa rudda makka ilal ida ilal ida moom la Sëriñ Tuubaa waxoon li man adaa yaddamu fi daarayni man aadaani bi abi baaqin fadlahu hadaani salama nafsahu lasi aadaani li annahu barasa man aadaani salama nafsahu li man aadaani li annahu barasa man hadaani برأس من بارسني يبا برأس من بارسني برأس من يبارس المنتقم البارز من برأس من بارسني براس من يبارس المنتقم البارس من سردم يبلو يبار ما سندس ما بتجي تجي نين دايما راونا باسما سردمنا yóbbu na kawe ki suukar ak warga ab ceeb amatul fasaakër seex dem na yóbbu na daraaye perkaal kenn dootu sol neuf mai di cooge say seex dem na yóbbu na daraaye perkaal kenn dootu sol neuf mai di cooge say ku da baraaye woo ku da baraaye woo ko reetaalaale day dëpp ndeeruy sol sagar gaalaali seex dem lu yóbbu na cerey maraakiis ak dalli dooreek dalli waa maraakees ku daa maraakiisoo ko di ceebu ma ngay faraasu tey di xaar am ceebo seex dem lu yóbbu na wotaak essence tey noo waaxu waaju xëy yor ku daa dawal wataaka daa witeesu ma ngay sareetu ma ngay sareetu mbaa muy dox di geesu ku daa yow ku daa dawal watiika daa witeesu ma ngay sareetu mbaa muy dox di geesu tubaab kuɗa ɓarayo wo keɗa witeeso ɗa witeeso kuɗa ɓarayo wo ka kuɗa dawal wata keɗa witeeso ma ngay sareetu mbaaw mooy dox di geesu kuɗa dawal wata keɗa witeeso ma ngay sareetu mbaa muy dox di geesu jigéen ñi daa tegele seen dobiinu tey jii ña ngay mbala ñu dootuñu fu donu yi wàcc nañ seen payoor ñi daa fa yoogi ñi daa fa yoogi bay ñoog tajoor ya meetar fukk ak nangam ma ko jaay kilo fukk ak nangam ma ko jaay si bu ci yëw sewo daan seexant yóbbu na ko noo yalwaan damam nga tax na ba nawet gantu gerte yi yàqu nañu dugub yi lantu yàlla nu seex bàmba yërëm te may nu nawet bu barkeel balu nu bay mu doy nu déglu moox la seydul muxtaaru kër yi ma moon ci réew mi def ka daaru mbakke kajoor la jëkk sañ daaru yamul fa ama ah, basa sin dem daaru sa bamba sañ ca bàkke ama ah, sasi ñu teg ca yetti at murid yay las mu daldi sañ ci daaru salaam ngir bañ lu xeetoo ki araam ak i malaam fukki juróom ci weeru safari ca besa sin bisub talaata la gori keroog ba ñuy sanc la Ibrahima taal nasru ga jox si deente sayyidu rijaal moo jëkki jébbalu ci si deenta ñoo bokk wuy ji yàlla na cant wallahi baaba ma ne su ko xool bët fukki juróom ñetti la am ceeyat limbi gaag leeram gaag leelam ja xeesaay baag taaram baag reexam ja tasawufam jaag waare waa gandiis ja xoromu gaag sempal gaag xayteem ja Seex Baaba am fa ñaar yoon wee Tuubaa sanc fa ma wasa si ndaw kooba keroog la Bamba may Daaru Salaam joolanta mu sax ba fukki at di sant ni te juróom ñettalaan ci aaya urofu Tuuba la ma jot mi at la seex yëlif minal muridiin tis an wa tis mu téeméere leen ca moob maat la bu naa ma sàll ak Ibra Fatim Saar di ñaani sàll mu bañu naa ko lee nga tàggoog mbooloo mbaate nga génn réew mi te jëmbeelu keroog dalee ni kama seexal falu leen daje ni mu naa murid yi fayu leen kajooro te keroog badar ja dekki ndekoon ba tey am ca ñu dootul tekki